إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi mbokki taale bi ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk turamam santam tey ñaanal sëñ Seex Sidi Moxtaar yàlla na fi yaadu ànd ku wér ak njabootu sëñ Touba gépp ak njabootu Rasulullah gépp tey ñoo ngi ci bisu xasida bi bi nga xam ne moom la ñuy def ci Italie Touba Italie ànd ko ak euh, mbooleem taalibe yëpp tey nag ñoo ngi fii ci exposition bi nga xam ne moom lañ jagleel bis bi te ki ko représenté mooy soxna Nagay euh, mi nga xam ne daa bokk ci waa Majalis bisimilah soxna Nogay ndax mën nga ñoo wax rek ci exposition bi luñ ko tënk ak euh, lan mooy euh, solo bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ziar ñëpp di leen nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa ci sa sant di leen jaajëfal ci bis bi te di leen ndokkeel exposition bi ngeen di gis nag euh, majalis italien moom moo ko taxawal ci njiitu sëñ Mahmadan Mbacke sëñ Aziz Mbacke majalis. Ehm, ak mboolem ñi bokk ci majalis Italia ñu ànd ci nag ak waa tout tànk Bergamo ak ehm, ak Milan Toscana ak mboolem ehm, tout tànk yi nga xamante ni rek liggéeyal Serigne Touba daf leen a daf leen a ñor. exposition bi ñi ngi ko tuddee exposition internationale sulla non violenza nell'Islam li tax mu tudd internationale mooy bi nekkul première fois ñun ñuy présenter exposition bi mais. waaye nag dafa nekk première fois ñu koy présenté ci italien exposition bi am na ci anglais moo nekkoon première version bi ñu ngi ko présenté woon le 11 septembre 2015 ca New York ci université bu Columbia sëñ Abdou Aziz Mbacke Majalis ànd ci woon ak université bu Columbia ànd ci woon ak mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk États-Unis mu nekkoon mu nekkoon exposition boo xamante ni dafa amoon ampleur bu mag foofa ci États-Unis rawatina ci bis biñ ko def muy le 11 septembre nga xamante ni euh, ku ci euh, ku nekk xam na ni 11 septembre date la bu symbolique pour àdduna bi waaye tamit pour jullit yi ndaxte bu ñu bu ñu ñu xoolee jafe-jafe yi nga xamante ni jullit yi ñu ngi koy jànkool ci jamono bi euh, tam euh, euh, terrorisme waral ko Euh, ci 11 septembre la la la tambali donc bis bu bis bu toll noonu ñu jël ci ku tol ni Cheikh amadou Bamba diko présenter ci New York dafa nekkoon lo xamanteni dafa am dafa amone solo donc lool motax ñu tuddee ko exposition internationale ndax c'est la première fois ñu koy def Italie ci italien mais mësoon nañ ko amal ci yenen dëkk euh, ca États-Unis amal nañ ko tamit Angleterre amal nañ ko Chine tamit ci chinois ama euh, amal nañu amaloon nañ ko tamit France exposition bi six lakk la nekk gum pour l'instant muy anglais français italien espagnol allemand ak chinois moom moom la exposition bi nekk ci làkk yooyu ci njiital Sëñ Abdou Aziz Mbacké Majalis léegi exposition bi nag su ngeen ko gisee li muy li muy li muy wax ak li muy tënk du lenn lu dul biographie Cheikh Ahmadou Bamba dundu sëriñ bi ak njàngale sëriñ bi lañuy tënk ci ay euh, ci ay pano ak lislaam ak mouridisme di li nga xamante ni moo ko dalee ci colon ci colonialisme ba ci euh, ba ci jamono yi nga xamante ni moom moom moom lañ toll ci tënk daal exposition bi thème bi thème bi loolu la ñi ngi tàmbale ci wax lan moo lan moo tax exposition yu mel nii am njariñ ci jamono ji ñu toll ndax fi nekk nii ku nekk xam na ni jullit yi ñu ngi leen di bu bu nu xataal ku nekk xam na ni jullit yi ñu ngi leen di tuumaal donc indi ku ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba dafay euh, dafay tax ñu am beneen gis-gis ci lislaam dafay am ñu am beneen gis-gis ci ci ci jullit bu wuute ak bi nga xamante ni instant bii nii moom la média yi moom la média yi di. di wane bu wuute ak bi nga xamante ni moom la ñu bari yaakaar ne julli di noonu la mel maanaam l'islam boo xamante ni dafay toleran l'islam boo xamante ni dafay indi jàmm l'islam boo xamante ni dafay respecté dafay respecté yeneen nit yi ñu ngi tàmbalee ci euh, définir lan nga lan mooy jihaad ci ni ko Serigne ni ko Serigne Touba jàngale mu mu mu wax ni jihaad bi ngi bi muy def mi ngi koy def rek ci xam-xam ak jaamu jaamu jaamu su jaamu suñ borom nekk euh, jaamu yàlla waaye tamit nekk xaadimu rasul moom jeexaatam ci ci ci lool rek noonu la koy def nee na ñu bari ñi ngi ñi ngi juum ci concept um, ci concept jihad di gaañ nit ñoo xamante ni ay innocent lañ di um, di def loo xamante ni amul amul amul njariñ daal Euh, ci ci ci diine alors que ñoom ñi ngi waroon a jihaad ak seen bakkan ñi ngi waroon a def jihaatu si donc moom ci introduction bi ci loolu la ñuy wax ci concept ci concept jihaad après ñu ñëw ci ni nga xamante ni moom la ku tedd ki euh, ñu ñëw ci ni nga xamante ni moom la ku tedd ki fonke moom la ku tedd gi fonke mbindeef yi nga xamante ni uh, dafa wax dafa wax ci ay bindam mu wax ko ci nax ju mu ne respecta um, respecta in tutte le creature i diritti di Dio per amore vers leur créateur creatore maanaam ñu ñu fonk ñu fonk um, uh, nit nit ñëpp daal ñu leen di xool ci ñuy xool ci ñoom jëmmi jëmmi suñu borom ji ñu fonk leen ndax sàkk gi nga xamante ni moom la leen suñu suñ suñu borom sàkk muy ñaa ci yaa raxmaan yaa tamit muy muy ñaanal muy ñaanal jullit ñuy ñaanal jullit ñëpp ak tamit ci mat matlabul faw faw zeyni tamit mi ngi mi ngi wax ni képp koo xamante ni moom e, kii na wax na ko ay kàddu wala gaañ wala gaañ gaañ na ko ci loo xamante ni euh, du yoon mi ngi ñaan suñ borom na ko na jéggal kooku noonu ba nga xamante ni kooku dina mën a jàmm yàlla suñ borom léegi su si su loolu noppee nag si lañ ñëw ñëw ci contexte historique bi nga xamante ni moom la moom la ku tedd ki ganee jamono ndax exposition bi par euh, euh, en ordre chronologique la nekk exposition exposition bi mi ngi mi ngi tàmbali fi sëriñ bi ganee jamono ba nim ba nim génne àdduna après ñu indi Euh, euh, euh, hérédité bi nga xamante ni ku tedd ki bàyyil nañu ko fi indi fi indi xalifa mi ak am solo gi nga xamante ni yoonu murit am na ko solo ci Sénégal waaye tamit ci àdduna bi yépp kenn mënut a wax Cheikh Ahmadou Bamba kenn mun ta wax mouridisme te waxoo Sénégal moo tax ci dafa am ci panneau yoo xamante ni dañuy expliquer situation géographique Sénégal superficie bi climat bi Euh, euh, grande ville yi économie Sénégal laa ngi fa nekk ak stabilité politique bi nga xamante ni Sénégal Sénégal am na ko après ñu wax booloo bi nga xamante ni sénégalais booloo nañ ko nga xamante ni euh, bien vrai que jullit yi ñoo fa ëpp ndax presque 92 pour cent population bi ay jullit lañ mais kenn mësta gis guerre civile Sénégal te religion waral ko mu nekk loo xamante ni mu nekk lu jafe ndax ñaare àdduna fu minorité am rek gis nañ ko eh, jamono yi ñu toll nii eh, ci Birmanie fu minorité am rek dañ leen di bëgg a noot dañ leen di bëgg a alors que Sénégal 92 pour cent musulmans lañ waaye c'est un pays laïque. Euh, léegi après fii nii nag ñu ñëw balaa ndax balaa ngay présenter nit ki da ci am solo nga wax moom fan la sosoo donc ñu indi. Euh, askan wi nga xamante ni moom la euh, sëñ bi bokk mi askanu Mbàkke indi Mamor Anta Sali indi Soxna Jaara léegi nag euh, daa di daa di doog a mën a dugg nag ci ku tedd ki Cheikhul Khadim bi ñu bi ñu bi ñu bi bi ñu bi ñu jàllee ci lool tamit ñu ñu wax histoire fameem maanaam immigration bi nga xamante ni ñoom defoon nañ ko nga xamante ni Mame Mor Anta defoon na ko ànd kaak Maba Diakhou ba nga xamante ni ci ci voyage boobu noonu ci la Soxna Jaara euh, daa di euh, wa euh, daa di génn àdduna ñu ñu def introduction bu ndaw nag ci Porokhane xam le ni Soxna Jaara mooy benn jigéen bi nga xamante ni ci Sénégal am na màggal boo boo xamante ni ca la te moom euh, moom lañ fay màggal te muy jigéen te euh, ñaare ñuy gis naan ñu bari dañuy yaakaar ni l'islam day doyadal jigéen alors que l'islam dafa nekk diine joo xamante ni dafa yëkkati jigéen ndax koo fonk bu nekkante ni woon diine ju doyadal jigéen kon duñ jël euh, ku toll ni soxna jaara ñu koy ñu koy màggal ci bi ci ci bis boobu noonu di màggal Porokhane bi biñ noppee ci lool nag daal di ñëw ci éducation éducation sëñ bi li nga xamante ni foofu la jaar ba sàkku ba sàkku xam après nag ñu doog a ñëw ci bannière bi nga xamante ni ñi ngi ko tudde gi nit si maanaam fi lépp tàmbalee mana moy mi nga xamanteni antasali Mamor Anta Sali hamanteni na ba nga xamanteni ci la eh, wolere baye mi ñewon ne ko te nga dem nga nga dem fekk ji nga dem fekk ji nek ci mom la sa la sa baay doonoon ci mom ci la ko ci la ko ci la binde mm, mm, irkan di le di len tontu ci lolu irkan lañ traduire ni en en italien pour wan pour wan li nga xamanteni mom moom la sëñ bi tontu woon ñooñu non ñewon ci mom diko wax demal nga ci Lat Joor la sa la sa baay doonoon balaa ñuy dugg ci mouridisme il faut ñu expliquer tamit lan mooy soufisme ndax ñoo wax mouridisme te waxuñu te waxuñu euh, soufisme donc ñu indi soufisme indi critique yi nga xamante ni moom la euh, yenn borom xam-xam yi di am ci soufisme ndax euh, ñaare day baax boo indee thèse indi tamit antithèse pour ki nga pour ki nga xamante ni daan na dégg li nga xamante ni jaaduwul ci yow li nga indi dina dina ma dina meuna am vision vision global ci yow li nga indi mu mu bañ a yow da ngay défendre rek sa position mais di nga indi tamit gis-gisu ñeneen ci mm, ci yow euh, position bi nga jël lool mo tax ñu indi civisme indi critique yi nga xamanteni am nañ ko euh, ci civisme après ñu indi mission bi nga xamanteni ku tedd gi cheikhul hadim amon nako indi mbeugelam ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dogo doog a dugg nag euh, ci li nga xamanteni mom moy mu Euh, mouridisme daal di expliquer brièvement lan mooy mouridisme ak yan base euh, la la la la nekk euh, léegi nag bañe bañeer yi nii ñëpp ba fii dañuy indi rek njàngal njàngale sëñ bi valeur yi nga xamante ni sëñ bi sëñ sëñ bi jàngal sëñ bi mm, jàngale na ko critique bi nga xamante ni doon doon na ko def ci ci ci société am euh, euh, euh, bi nga xamante ni doon na ko def ci ci colonisation après nag ñu ñu dellusiwaat ci njàngale sëñ bi ni mu liggéey ni fonké fonke sàkk xam-xam ak ni ñu ko digale ak mbëggeel gi nga xamante ni julli di war nañ ko am entre entre ñoom. fii nag dañ fi um, buñ buñ jàllee ci loolu ci la ñuy indi Touba nga xamante ni nga xamante ni dañ koy dañ koy présenté comme ville boo xamante ni moo nekk euh, euh, ci premier euh, première ville bi nga xamante ni dañ faa tere dañ faa tere tabac dañ faa tere alcool dañ faa tere drogue ak lépp loo xamante ni l'islam nangu nga xamante ni um, um, ci ta santa la Euh, donc fii la ñuy dañuy dañuy dañuy présenter Touba ak euh, ni nga xamante ni mu noonu la ko sëñ bi doon euh, doon ñaane ci Matlabul Fawzeyni buñ paree nag daal di duggaat ci histoire ci histoire mouridisme indi fi nga xamante ni fi lañ jàppe fi fi fi lañ fi di di di di di topp sëñ bi sos yi nga xamante ni doon doon nañ ko doon nañ ko ko sosal ak dem gi nga xamante ni dem na donc ñu indi tamit euh, màggalu màggalu Touba. ñu indi ñu indi màggalu ñu indi màggalu Touba bu ñu paree nag daal di daal di jàll ci euh, exil bi daal di wax histoire exil bi yëpp li ko euh, li ko dale 1885 euh, ba keroog muy ñibbisee ba keroog muy ñibbisee Gabon ak deuxième exil bi ndax ragal gi ko ragaloon ak ba keroog muy làqu nga xamante ni dañ ko bàyyi woon njaareem asile bi lañ fi bi euh, bim bi mu bi mu demee Mauritanie après bi mu nekkee résidence surveillée Diourbel buñu bu ñu paree ci exil bi ak natt yi nga xamante ni tubaab bi doon nañ ko teg ku tedd ki ñu ñëw nag ci li nga xamante ni moom la ku tedd ki waa bi mu bi jugee ci jafe-jafe yooyu yëpp maanaam jéggal naa sama noon yëpp donc loolu day indiwaat temu exposition ya, manam non violence ndax señ bi bu ko neexoon bu ñëwaatee mu mu mu mu bu bu bu mu jël ay gannaay wala wala mu jéem fayanto ak ñi nga xamanté ñoko tégon natti way def ko dañi jéggal na jéggal na ñepp loolu loolu motax ñu jël ñu jël ko comme exemple pour jamm pour paix pour euh, pour tamit exemple non violence légui nak buñu buñu paré ci paree loolu ñu waa présenté euh, mosquée Diourbel euh, ak Diourbel ak nim meloon daal di indi nag bi sëñ bi làqoo ginaa bi sëñ bi làqoo tamit ñu indi li nga xamante ni moom la fi bàyyi woon daanaka li ko dalee si sëñ euh, sëñ Modou ba ci sëñ Sidi Mokhtar xalifa bu nekk li nga fi def waa expliqué nañ ko ci ci ci ci bannière yi léegi nag après ñu expliqué impact bi nga xamante ni immigration mouride am na ko ci diaspora bi ak euh, participation bi nga xamante ni murid yi ñu ngi koy def économiquement ci Sénégal waaye tamit euh, fépp ci àdduna bi indi Bamba de yi indi tamit ni ñuy euh, ni ñuy soqalee économie économie Sénégal buñ paree na ñu indi critique yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy def ci mouridisme ndax comme ni ma leen waxoon ci soufisme rek donc ñun ci ci biir soufisme lañ nekk Euh, da war nañoo mën a xam ñi si des nan lañ ñuy lañ la ñuy xoole pour ñu gën a mën a defaraat suñ toogaay noonu tamit noonu lañ ko defee ci mouridisme indi critique yi nga xamante ni moom la nit ñi di euh, critique euh, ni critiquer murid gi ak nag mouridisme ni mu influencé Sénégal ci lépp ci culture ci wax ci ci solu ci defin murid yi dañ see influencé Sénégal ci ci ci ci lu bari Euh, donc euh, li moy exposition bi nga xamanteni def nañ ko ku bëgg am plus d' ci exposition bi mën nga dem xol suñ site web bamba expo euh expo.com ñi ngi ci doon and ak sëñ Abdaziz Aziz Majalis li ci and ak euh, wa commission traduction bu Majalis Italia إني أخاذب النصارى في أرضهم gi murtara ini xaadimu nasara